من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بعالمين الرحمن الرحيم على قيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا سلاة المستقيم سلاة الذين أمنت عليهم خير المغدوب عليهم ولا الدالين آمين السلام عليكم بوكي جريدي بوكي تالبي بوكي تولو الشيطان سين سيت بي دي ديسك انفو واي تامل ني تولو سين بي ديسك انفو ني باي تولو سيت بي ام ني باي تولو تي يوتيوب بي زياره بي ak mboolem ñi si abonné nga xam ne ñi si ëpp talibé si Moustapha si lañ responsable moral daayiratu Moustarchidine wala wala Moustarchidaty ñu leen nuyu ñoom ñëpp seen émission bi nga xam ne si moom lañ tuddee seen firi gént seen firi gént nga ci ànd ak seen Mor Talla Tawfekh semaine daañu ñëw def benn vidéo ci génn gént ndax gént day xaqiqatan day lu am moo waraloon yonent Yàlla Yuusufa alayhi salaam daan firi gént kon lu wér la lu am la moom gént tegtal bu leer nañ la boo ko defee kon xam ngeen ne tey damaa ñëw ci benn gént muy gént di gént di lekk ndawal ndawal gu ñor wala ndawal boo xam ne si ñor ndawal xar la wala ndawalu bëy wala nag wala gëléem nga gént ko di ko lekk baaxut boo géntee yor ndawal baaxut buñ la ko sànnee baaxut gént ndawal dafay firi feebar tawat lay firi ci doomu aadama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 kool الله الخالق البارئ المستوي له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العرش العظيم ngay daan juróom-ñaari yoon daal koy ëpp sa sa sa loxo lay jël raay sa boo ko defee yàlla dana musal ci feebar boobu boo ko kon di fàttali ne émission bi moo tudd seen firi gént ngeen ci àndal sëñ Mor Talla Tawfekh chaque semaine danaa ñëw def benn vidéo ci site bi ak ci chaîne bi incha allah ci kàttan yàlla ak mbaaxam boo ko defee kon euh, jullit ñi mën cee jariñu

ba semaine bii ñu jëm ci beneen gént incha allah jërë ngeen jëf